ngeen di jot ay xibaar bismillah ku bëgg a dee weexu dee mbir mi daal xeex la xeex rek mbaa dee laa a wax tribune yéene kaay ne Ousmane Sonko dee pare na de ngir lépp nag laa a wax maa la ko wax njiital Pastef yooye waaw nee na du ma wuyu ci benn convocation laa a wax ar day taali waaw waaw ak jalgati bi nga xam ne maanaam jalgati nañ ko nag loi bi lée sama malaanu ki raange ga day fa mu nekkoon nekk ba léegi nii la dañul dëgg la Ousmane Sonko day ci tribune yéene kaay waaw nee na gis laa malaanu kiiraange Ousmane Sonko moomee waaw jàppale ne Sonko day ma nga la ngaa na kon ci ay sërëm laa la wax dëgg la laaste parce que jàpp na ni daal fi nga xam ne moom la gaa yi jaar ni la mbir baa baaxul de moo xam kon ci tribunal ba la wala boog ci assemblée nationale dañoo jalgati yoon waaw ba tax na nag Ousmane Sonko day la mu nar waaw mooy xeex rek confrontation Ousmane Sonko daa nar a xeex njiital Pastef googee nee na caatum réew mi ci boppam laa wax nii mooma may ma j'invoque mon droit constitutionnel de résistance à l'oppression dëgg la caatub réew mi ci boppam laa wax nii wax na ne bu ñu la toroxal la te loolee jaarul yoon xeexal barke yonent bi xeexal lu waa santaane de Ousmane Sonko ne ne gis nga le doyen des juges day Samba procureur de la République Bassirou Gueye ak le juge Mamadou Seck mi ne ab langa buri la triangle boo xam ne fa yu defu lii di jaar a le témoin yéene ka ay critique ne Ousmane Sonko kay jël na nag mboy gi Sonko prend le mat Ousmane Sonko ne dama doon wujje benn convocation juge d'instruction bi laa la wax critique yéene kaay njiital patriote yi day fas la wanteer boppam de billaay ko soxla ci moom ah di nga lu bare bari laa la wax dëgg la waaye nag moom Ousmane Sonko daal dina yëkkati ay tuuma yoo xam ne lal koo ci ndoddug magistrat yi nga xam ne maanaam ñoom ñoo yor dossier bi de Mamadou Seck la ak procureur de la République waaw Bassirou Gueye dama ne la Ousmane Sonko bi le daa sambal ndënd défier xam le ne ne xeex rek la résistance ngir yàq projet bi nga xam ne ñoom nguur gi dañu koo teg ngir daal di jeexal na carrière politique am daar daar a projet naa fex waaw Ousmane Sonko ci direct news yamu ca ndaxte nee na Macky Sall day nay bëgg-bëggam teg loxo Ousmane Sonko ci nu gën a gaawee nag laa la wax daal koy yóbbu ca kaso ba mandat de dépôt comme que ñoom moom mandat de dépôt yi tourné seen bopp yi yéene kaay Pape bi ne Ousmane Sonko bi lée ah est-ce nekkul ne xeex ak Macky Sall la ko bëggee mardi tali la ilaha na ñoo ñëwoon te googee di fa yëddu di estionné waaw Ousmane Sonko day jël na ca ñoom matérielu police bu diis a diis nag laa la wax te yàlla Ousmane Sonko ci enquête yéene ne duma nangu ñu may teg loxo teg loxo boo xam ne kon jaarul yoon te loolee yàggatul te Macky Sall ci boppam laa lay wax nii moo ko programmé termine yéene kaay ne jàpp leen ne Ousmane Sonko day défié na justice bi laa la wax sampal na leen dënd te dàq na tamit bépp convocation Ousmane Sonko xamal na ay militant mais looloo fi war a jeex Macky Sall xeex la xam rapport de force defante la xam Macky Sall xamul droit ay mbir mi jaar na yoon ak jaarul yoon yoonam ca laa wax waaye bi yoon dee bu ma bëggee liquider moom Macky Sall waaw bilaay ay loxoom danañu taxawala 24 heures yéene tout cas Ousmane Sonko day waaw fas yéene wala nekk ay yaay may ma ñeex de toog noonee ñu sànk ko déedéet Ousmane Sonko ne maa ngi xamal Sénégalais yëpp ne leen bu weesoo ay feebar yu ndaw a ndaw waaw jàpp leen ne dara daluma laa wax aw ma feebarum xol aw ma feebarum dënn du maladie cardiaque wala pulmonaire cancer jabetuma dara daluma laa lay wax nii maa ngi xamal sénégalais yëpp nee nag lu ma mën a dal Macky Sall la jéemmaa posone jaarale ko ci way xarale yi lée yu sophistiqué posone ma Macky Sall la Ousmane ne seen bëgg-bëgg bi daal nekkul dara teg ma loxo dugal ma ci kaso bi ma fa ma dee foofee ca biir kaso ba ci ay élection yàq sama dar daal di may toroxal du ma ko nangu dara bee saa yéeni kaa gi ne waaye waa maar day waaw nee la cinq bii di bi déglu nañ ko démb ca tribunal ba mbéte président dañ koo escorté ba maara day taali laa la wax ko yéene kaay ne aji Sarr de juróomi waxtoom yañ ko déglu waaw fa mu nekkoon la nekk ba léegi aji daal elle insiste persiste et signe barke yonent a a a ka gendarmerie ba yéene kaay bi ne seede itam danañ leen woo day muy deuxième masseuse ba ay sataba borom salon dooma Ndeye Khady Ndiaye jëkkëram Ibrahima Coulibaly ak Sidi Ahmed Mbaye jarbaatu Maodo Malick Mbaye ak Ousmane Sonko kooku nee na du wuy ji sur saane assemblée tey day waaw ay dëmboo dana leen xamal ne leen gis ngeen Ousmane Sonko mi la wala yàgg naa xam ne moom ngeen di wut yéene kaay daaw da càmmi ne bu ñu laalee malaanu kii daa ngeen ba day sus instruction ba waaw léegi ne kenn mënatu koo téye daaw da min journaliste waaw bu boobaa kay ataka baa koy convoquer jooje Macky Sall lañ doon pikiiru ca fale ba le soleil yéene kaay ne ginnaaw ba mu ñaxoo ba waaw nee na ñi nag joxe nañu exemple ñeneen ñee ca des président Macky Sall ci tribune yéene kaay ak laas jëlulee ñax yii yéen sénégalais yéen laay waxal boo leen jëlulee ñax yi pikiir yi waaw dama koy ko yeneen ni réew Afrique mbéte ku moom yi direct news de ne ko ah non non non non monsieur le président amoo sañ-sañ di joxe suñuy ñàkk laa la wax non monsieur le président vous n'avez pas le droit de donner nos vaccins waaye yow yaa ko moom yéen a kaay Pape Jogoy i réew loolee nekkul ay kàddu yu toog ngir yay sénégalais pour ñu dem ñaxu ji loolu du sa wax bu dee ñax yooyee dañ leen a jënd suñuy impôt la jar suñuy ñax la jar bu dee nag dañu ko may askan wi ci boppam lañ ko may ne ko mais monsieur président sa ministre de la santé bi ci boppam kon nga war a waxal ngir mu teg benn programme boo xam ni ñaax nit ñi sensibiliser leen yay leen convaincre leen ci wàllum vaccin bi parce que nag monsieur le président yorug réew tam gouverner c'est aussi convaincre yay nit ñi rawatina nag bu nekkee ci musiba <laughs> wallaay ñaxu yi day pikiir yi boo ko mayee du la pare ma ne la alaaji tëjal